Maïmouna. <laughs> nu muy sukkandikoo ci l' article cinquante deux de la constitution. article cinquante mënoon naa sukkandiku. ci muy prévoir quatre situations. président mënoon naa sukkandiku article cinquante est un des articles passible d'une interprétation subjective dañu ne bu fekkente ne institution yi. seen fonctionnement dafa am gàllankoor muy dem ba menacer stabilité wala sécurité ñu ne président de la république mën na entreprendre toute action pour rétablir leen loolu article bi wax ça peut être objet d'interprétation subjective dama jàpp ne loolu moo tax président laalu ko évoqué wu ko lenn rek la mënul woon a def ci diggante bi mooy modifier constitution bi wala mu di euh, dissoudre assemblée nationale léegi nag may mun a lu grave noonu lu ci président defoon rek problème am te nag ñi yuuxu tey naan ko lu tax nga def ko ñoom ñoo ñëw ne ko def ko ñoo ñëw ne ko def ko may mun euh, xam nga lu tax léegi euh, Souleymane xaaral man nga ne mënoon na sukkandiku ci article cinquante deux sukkandiku si ci waxam d'ailleurs article quarante deux la invoqué muy son statut en tant que garant du bon fonctionnement des institutions article cinquante deux dafa ne mën na utiliser ses pouvoirs exceptionnels en cas de conflit entre en, en, en cas de crise constitutionnelle mais il ne peut en vertu des pouvoirs exceptionnels procéder à une révision constitutionnelle voilà lii moo tax mënul woon sukkandiku ci article 52 si, oh, et il ne oh, l'a si, si moom laa la wax c'est une question d'interprétation subjective encore une fois dafa ne tout lépp lu lépp lu président xalaat ne war na koo mën a def mën na koo def gis nga en vertu de sa ce mu mënoon na dem sax plus loin soxlawul modifier constitution bi pour def ko lépp lu mu xalaat ne jar na ko wala moom mën na ko mën na koo def loolu la article bi wax mais effectivement sa peut prêter à des interprétations c'est de la subjectivité mais te pur dafa am article yoo xam ne ci constitution bi comme boobu nga évoqué c'est de la c'est de c'est des articles littéraires defe naa article 31 lañ mujj visé mais Assemblée nationale moo décidé président de la république acté assemblée moo décidé man fooguma woon ne sax wax jooju dinañ continuer di ci wax. alors Souleymane ba léegi